dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéene ñu ñu xëyandoo ñaawteef yi nga xam ne moo nekk ci réew Sénégal fu ko waaye nat daan na paase xale yu ndaw yi nga xam ne ñoom la ñuy caxte-caxte di yegg seen kaw di leen di siif di leen di yàkk yàkkataan bëri na ba seen àdduna doxe fi daal di yàqu bëri na lool ci réew mi te loolee luñ war a wax la ci réew mi yéene gi di réew mi quotidien xëy ci def ci ay révélation yoo xamante ni yu doy waar a doy waar la ba ku ko dégg di nga dar sa gémmiñ ndax bëri na ay tuutànk ay perantal ay xale yoo xam ne maanaam ay mineur la ñu yegg seen kaw caxte-caxte ba yàq seen àdduna maanaam yekkataan leen ñi ñu violé leen journal bi nee na am na loi boo xam ne daf koy tere ci réewum Sénégal audience ci tribunaux yi boo fi demoon maanaam da ngay waaroo yéen kaay gi nee na am na benn xale boo xam ne mineur la fukki at ak ñett rek la am kookee 1000 francs la ñu ko jox yegg ci kawam ba yàq ak ndawam am na ci koo xam ne ab jaaykatu dàll moo ko jox téeméer caxte-caxte ko ndax xale bu xamul dara la am na koo xam ne benn kilifa moo ko jox 5000 francs yegg ci kawam te ñii ñëpp ma leen di limal ay magu jëmm ñoo yegg ci seen kaw yéen a gi di réew mi ko di cee mu xëy def ci ab dossier ak ay nettali yoo xamante ni mbir mi doy na waara yéen a kaay gi de la xëy waaxa ci marché Sandaga bi nga xam ne ni ki ginnaaw ëllëg war nañu ko tëj maanaam ci ajuma ji journal bi nee na jëlee fa ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci mbirum jënd ak njaay yóbbu leen champ de course waaye nag ñooñu maanaam commerçant yi dañoo lànk kandaare ñoom nee na anam bi nga xam ne moom la ko état bu Sénégal bëgg defee loolee ñoom duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg diwaanu ndeng leer ak coow li nga xamante ni moo am coowal suuf li ñu joxar bi baaraamu tuuma Babacar Ngom bu Sedima na dafa bëgg a teg loxo saax-saaxee seen suuf moo tax askan wi nga xam ne ñoo dëkk Ndengler ñoom nag ñoo ngi sàkku njiitu réew mi di ma Macky Sall maanaam yiy yàbbi ci mbir mi maanaam daal di ciy wax ña nga xam ne nag ñooy waa Ndengler ñoom nee na ñu lenn kese la ñu bëgg maanaam ñu joxaat leen seen suufa Mamadou Lamine Diallo la mu xamle nee na askanu Sénégal gi ñëpp ñoo war a xam ne régime Macky Sall bi caxte-caxtee suuf maanaam ci seen deret la nekk ndax bëri na ci biir réew mi foofa dem ñi nga xam ne ñoo ànd ak Macky Sall ñoo saax-saaxee maanaam suuf sa nga xamante ni moom la askan wa moom yéen a kaay gii di libération bàyyi mbirum suuf mi wax ci woppi coronavirus ji nga xam ne ma ngi gën di law ci réewum Sénégal lu toll ci téeméer ak fukk ak ñaar ci ay nit ñàkk nañ ci seen bakkan lu toll ci fanweer ci ay cas grave maanaam ñu nekk réanimation yéen a kaay gii di a mu xëy yóbbu ñu diwaanu Diourbel sa kaso ba lu toll ci fukk ci ay détenu jamono ji amee nañu woppi coronavirus las yéen a kaay mu xëy di ñu xamal lan ñu kaso bu Diourbel panique njàq rek tiis dëgg moo fa am askan wa tiit nañu tiit nañu jàq nañu yéen kaay gii di réew mi ko di ñu fekk fa Abdoulaye Diouf Sarr la mu xam leen nee na cas grave yi maanaam ñi nga xam ne ñooy nekk réanimation téeméer boo si jël ju lu juróom-ñaar fukk ya yëpp maanaam dañuy wër Abdoulaye Diouf Sarr ne bu leen dégg cas grave ak réanimation ba jàpp ne ku fa dugg rek da ngay faatoo Abdoulaye Diouf Sarr ne li nga xamante ni moo tax njiit réew mi daal di yeewi askan wi loolee dafa bañ a naxasal li nga xam ne mooy économie réew mi yéen a kaay gi de la turbine mu xëy di ñu xamal naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall dafa mel ni jamono ji nag dafa commencé jaaxle ndax nag gouvernement bu yees la njiitu réew mi bëgg tekk waaye nag dana wàññi ministres yi bu baax a baax am na ay ministères yu bari yoo xamante ni daf koy boole yéen kaay gii di Dakar Times mu xëy di ñu xamal la ñu waa FMI jamono ji nag ñoom daal nañuy dar seen gémmiñ ba pare daal di dànkaafu autorité yi ci lu jëm ci wàllum dépense d'urgence yi nga xam ne maanaam kilifa yi ñoo ngi koy wax ci lu jëm ci woppi coronavirus ndax waa FMI dañoo gis ne dépense d'urgence moo gën a gaaw ngir détourner alalu askan wi yéen kaay gii di réew mi quotidien ci xëlim ak Samb xëy na ci parti bi di APR ak pëccëxoo gi nga xam ne moom la pëccëxoo ak tamante de muggee ka tojante bopp gi nga xam ne maanaam moom la ñu fa nemmeeku yéen kaay gi di Stades mu xëy di ñu xamal naan ñu équipe bi di FC Barcelone jamono ji ñoo ngi si ay jafe-jafe yu métte métti ni ki démb dañoo témboo ak Atlético Madrid te loole na dana gën a ubbil Real Madrid ngir mu mën a jël championnat bi yéen kaay gi di sunu làmb mu xëy di ñu xamal na ñu Gaston Mbengue tëgg na combat Balla Gaye 2 Gris Bordeaux